ne Petit Mbay nee na la ko jàpp deux cent euros lay dugal moom rek koor gi neex nag. laay wañu eh eh kii du Ndeye Ndiaye. egsi ah ma ca Ndiaye jàngoo. Ah, wañu eh non yàq nga. Ndeye loo def weer sonn. yee <laughs> ceen gi son bi boo ah. dégg de. non yow doo dem tonto Diop. Ah. mais wax ba xam nga ni temps yi yaa téye bës bi. waaw yow loolu ñu ngi koy wax. yow de àddina yow la ñuy waxtaanee fi mu toll nii. waaye non ndax xam nga léeg-léeg moromu nit ñu ne Ndiaye jaata Ndiaye si ne ko ca bell ma Pate Gueye Ndiaye man leen puusal bokk ma foofa <laughs> ñu ne ngoom yaa sin ma jaxu ngoon a xaram la benn den caab man leen ah non non non non du ma foofa. cum galank ba jub sàppa yaa ndaw ma tabara ma tar dooki borom dënd xanjar yaa ngi nii maa leen dogi tii la fu ma bokk ah. maa nga bokk ca jam jàllo jaaji fal ma sama ndede fal ndene dembaak ndene maram jàllo ndene yaa si nuuj ah. man doo ma man temps yi moom amul noo xewal fi mu toll nii yaa rew yaa raw di ngeeru xel eh, dama télé Sénégal nii leen tonton Ameth Diop Fall mbëkk laa soxla ah. ñu ne la mi ngi nii ni faa ngi nii laay toogee croisé sama bara comme kuy tox maal góor xam nga instant bi foo ne. Mhm. yaa ngi ci Ndoye Bane xalaas yow la ñuy waxtaanee. <laughs> Ndoye Bane moo ci kan ke ki ku ñaaw ke <laughs> Mati ba moo ma woo téléphone dama déglul xalaat. <laughs> eh fi ne cuuraay ju nëbal onze dama ko rom. ah léeg-léeg 49 di rànke tonton Diop naa nga mën leen non je ne parle pas ak vous. instant bi yaa ngi yeewu leen laaw Pape Cheikh Diallo di la kerkeraanu. Pape Cheikh Diallo man lay wër. yow lay wër. bu ma toogee sama wet nii. daa toog Diop kot man ko papa <laughs> walla baa lay bañ. man daal xam nga lu ma lay digal. ñëwal doom ndey. Aliou Diop. nga dajale suñu nijaay bu ñu bëgg la torop. Eh, maa leen ma bëgg nga waaxu nànk ba jasab yow yaa moom machine bi tonto Diop boo mënul dem jasab nga ñëw ma boole laa foo de ndax àdduna kat yàggul te feebar bu ne dañ koy faj ñëwal ma boole laa moom nga faju moo la alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin guppo gupp gupp faada gupp ay man gupp lëfër lëfër taseeti nanu lan la moo xew ah nday yaay laaj lii lan la nday yàlla du nit yàlla mi daagul nday njaay ba mu ñëw man Ahmed Diop Fall mbëkk mu indi la yàlla du nday xam nga nag dafa am lu xew yàlla dalaa bind tabarkaal nga mel ni nga war a mel jël ay fen rek féete woo ko rom ma toog sama buntu kër nga wër Sénégal yëpp yàq sama der nda yaaraw tame tame du tee diw nda yaaraw lantinoor nday tame du tee pëndëx waxuma la ak suuf ngay lay rek li ma fenal rek tayo ko nag sa jukko tooñ waaw dëgg la xam ku ko def ku ko wax la bëgg moo tax nag tey lay mel ni mbuus munu bëtt ak a yamb tey tey nga mel ni aba ndey damaa bëgg porte à porte ngay doon def meeting proximité fu ne nga dugg fa di wax laa bëgg nga toppaat say tànk ci fair play nag benn par benn naan leen papa Amady Diop Fall mbëkk wér na loolu rek la soxla beneen baat boo ko waxee lu loolu ndey tooñ nga te julli du tooñ ay fan nga jël yaaraw naan laalo di wax rek yow boo sëggee say wax dem boo sëggee say wax dem ma bëgg nga départ léegi ci nu muy teel a nag ba dimbali ma dama la ko. tontu woo woo woo woo Ndeye looy wax non non demande l'excuse ni yaa ngi dem. dëgg la dama la eh, eh gannaaw laa lay féetee nag Ndeye. bi bi nga wax dama laa eh, déglu dama bëgg nga xaw déglu ma ko yaa ngi toog ñaari yoon nag non da ngaa war di wax beneen bi yaa ngi insulté. yaa ngi déglul looy wax. Ah, ah ah eh. ah Ndeye dama laa rus. billahi dama la dama la rus déglul dama la eh, eh. yow tooy wax ma wax yow buñ la waxal looy buñ la waxal looy wax looy wax léegi laa la da ngay yëg wal sa gémmañ lii ngay tëj wala nga jël ay kan wax non day leen day mën naa baale lu ne eh. lu ne laaj baale ba mu des lii doo ma fenal ale di ma fenal retour ubal sa gémmañ doxal kanamu fenkat nga yor col kaak fenkat nettali nga nettal ba nettal sa bopp demal baax ndey doxal woo woo waay bu ma xool ndey mënu ma ca dara barke yowmal xiyaamul akbar doxal doxal ah woo waay nday bu ñu looy wax say lex ni ay mbuus looy wax lan wax ñaanal yàlla wér jël ay kuude doxal waay waay nday doxal nday dama lay fut doxal foo jaayee porte à porte mu wér man yàlla du ay waay nday yaayoo yaa mën a loolu rek nan la ko war a eh buntu bu ko bàyyi de doon ko fen ñu def na nii Sénégal réglé na na ko ñëpp naa dem ba ci Sénégal télé Sénégal point com toogaat fa di wax point yow amoo virgule